manam di di leen jox métier parce que ñep xam nañ tay tey euh, li mëna régler problème jeunes moy non seulement jox leen métier wala tamit fexé ba suñu amé métier bobu tamit ñu am xey té loolu je crois que ñun ci la ñuy euh gouvernement bi tamit je crois que ci ci ñoom ci loolu la ñuy liggéey également donc euh, ministère de la l'enseignement technique et de la formation professionnelle hein euh, de l'artisanat ñom tamit ci ci liggéey bobu lañu nek euh, wane rek ne euh, contexte bi ñu nekk contexte réforme de la formation professionnelle euh, ku ne réforme de la formation professionnelle moy ne il faut que lëkkaloo bi nga xam mom lañu amone ak entre ak entreprise yi këy këru kay que lolu ñu renforcer ko ku ne également réforme wax ne également programme yi nga xam mom lañuy mom lañuy def programme yi nga xam mom lañu la ndaw ñi programme yoyu entreprise tamit duggal ci seen loxo baax baax baax donc tey vraiment dañu dañuy fësal suñu mbëgte ah, ah, ci ah, programme bi nga xamné euh, mom mom moo ci la ñu sukkandiku mooy euh, affaire abri provisoire parce que ñëpp xamnañ abri pour abri provisoire problème la euh, ci grande ville peut-être amnañ ay salle de classe mais so démé ci àll yi hein, voilà ay abri provisoire té lolu vraiment Sénégal warna warna dépasser lolu donc tay nak partenariat bi nga xamné signé nañ ko euh, manam dina fexé ba euh, ak technologie bu bi nga xamné mom lañu proposer mo ay structure légère nga xamné technologie boo xam ne tey soo demee ci yenn pays anglophones yi adopté nañ ko bu yàgg hmm? donc euh, tey technologie boobu ñëw na Sénégal ak entreprise CSTM nga xamné ñom maîtrise bi ci war am nañ ko donc tay kon ñun dañuy fësal suñu mbecté wa kontaan trop ci manam taxawal partenariat bobu engagé ci nak ñëpp nak hein, muy direction école bi muy conseil d'administration bi ah, wala tamit di remercier suñu partenaire yi di ma ko waxee léegi rek moy ñet ñet moy ci intéressé benn bi dañ mëna taggal ay jeunes ci technologie bu bees bobu ci savoir faire bobu benen bi euh, dinañ leen mëna a également euh, pour pour ñu pour ñu am liggéey hein, parce que programme bi maanaam li ñuy wax chantier bi war wi dafa yaatu Oh, chantier bu bu yaatu la benen bi tamit euh, dinañu mën contribuer hein, ci suñu niveau pour que vraiment problème euh, abri provisoire yi hein, mu nek lo xamné Sénégal def ci def ay jéego yu am solo pour mën ko régler parce que yëf yi du affaireu khalis rek mën nga am khalis mais ça demee bay tabax su waré trois semaines alors que avec cette technologie là nous nañu réduire les délais de construction donc lolu vraiment dañ ci dañ ci sante